jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu euh, site internet bi di bawal info point net ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal di rafetlu seen ànd ak site bi yéen ñi nekk ci 3w euh, point bawal info point net wala yéen ñi nekk ci page Facebook bi wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci chaîne YouTube bi mbokk yi tey dañu seq waxtaan ak général Diène Gueye mu nekk responsable politique APR ci département bu Mbacké waaye rawatina ci commune bu Touba. ñu bëgg waxtaan waxtaan ak moom lu jëm ci remaniement ministériel bi nga xam ne def nañu ko niki démb ñu gis ne bëri na ñoo xamante ni tey euh, dàq nañ leen am ñoo xamante ni dugal nañ leen bëri na tamit ay gox yoo xamante ni am nañu ay ministre maanaam ñu leen représenté euh, ci conseil de ministres département bu Mbacké gis nañ ne ba léegi nii amul kenn koo xamante ni tabb nañ ko fa euh, ñu bëgg waxtaan ci lu yaatu général Diène Gueye Bawal info point net ma ngi lay nuyu. waaw lay fay. général Diène Gueye euh, laaj bu njëkk bi mooy remaniement ministériel bi ñu def gis nga ñi ñu génn gis nga ñi ñu dugal ban commentaire nga ciy def. waaw jili euh, ma suivre nañ ko ñun ñëpp ñun sénégalais yëpp li nga xam ne toog nañ juróomi fan presque di ko xaar mais euh, bi mu egsee ñun responsable politique de l'APR yi nga xam ne si ne mën nañu wax ne ay APR authentique lañ dañoo am lu ñu metti am lu ñu bett tamit aussi ci mbir mi parce que ñun mënuñu comprendre tey jii fi situation réew mi toll ñu ñuy indil ab gouvernement boo xam ne si ne gouvernement wu pàccoo la te loolu mooy dëgg ensuite beneen bi ci topp mooy nan ngay mënee toog juróomi fan di xalaat lu jëm ci réew mi ak lu koy doxal ba noppi jël deuxième département bi nga xam ne si ne moo gën a rëy ci Sénégal mu ëmb deux mu ëmb commune bi nga xam ne si ne moom mooy commune bi nga xam ne si ne fii mën naa wax ne yaakaaru Sénégal yu bëri fa la ñu nekk nga bàyyi ko ginnaaw te muy Touba te président Macky Sall toujours ma fàttali ko histoire ne ko le 6 mai 2010 bi muy ñëw ci sëñ pour di sàkku pour mu ñaanal ko pour ñemeloo ko pour mu dem bi mu ñëwee def na sëñ alaaji baara damaa soxla réew mi ndax li yéene yore réew mi moo tax ma ma ma man ma mën ko def sëñ alaaji baara mbàkke yàlla na ko yàlla yokku leer daan ne ko fii kenn du fi tasa yaakaar li ngay wax bu dee dëgg la ci yow duggal fii ñaan ko borom barag keroog la bal bi tàkk mais dama bëggoon xam rek lan mooy problème mu président Macky Sall ak waa Touba ak lan mooy problème mu président Macky Sall ak waa département bu Mbacké loolu problème la boo xam ne il faut ñu poser ko di ko wax daf ñoo wan na ñun boolewuñu ci dara te ñun sept soixante sept mille voix lañ am pour contribuer ci li ko jàllale premier tour Géejawaay soixante deux mille voix la am gagné Touba électoral moo ëpp Sédhiou Touba am réew la te président Macky Sall maa ngi dégg am kuy wax benn sa benn naataango journaliste naan dañ dul gagné moo tax duñ leen jox mais président Macky Sall mosu ñoo jox dara ñun 2012 bi mu ñëwee bi muy nommé dafa jël Xaarim Diop nommé ko Xaarim Diop du politicien bu sóoree ñaari kiloy ceeb këram du mu sànni leen mosu fee nommé ay ministre yoo xamante dañ koy jàppale si base politique am ñun bu ñu soxlaa dara dañuy daw topp ci doomu Fatick yi ak doomu Matam yi di ko lijjanti mais ba kañ loolu il faut ñu xoolan ci ay bët wax ko loolu mooy dëgg lii xew demb dara neexu ñu ci ñun ñu koy jàppale fii ci tuubaa loolu mooy dëgg ji li léegi nit nag dañuy waxante dëgg président Macky Sall bu fekkee daf ñoo nawloo ñun gëmuñu ko ñun Serigne Touba lañ gëm dañoo ànd doon ko jàppale liñ ko defal liñ ko labal fayuñu ko kooku mooy dëgg. waaw mais soldat waa Touba kenn kontaanu ci. soldat mais président Macky Sall même su gagné wut Touba dafa war a xool nombre de voix yi fay am ma ngi yokk wala yokkuwul. dama ne la bu ñu dem opposition bi ñu fa nekkee trente huit mille voix lañ am bi ñu nekkee opposition pour contribuer ci li yóbbu Ablaye Wade quatre appuis pour mu dem deuxième tour bi ñu ñëwee élection bii passé dañoo yokk ay voix am soixante sept mille voix bu ñu ko amutoon politiquement président Macky Sall daf ñu seetaan musuñoo recevoir benn musuta recevoir waa département bu Mbacké salle de banque Pikine dem nañ fa Fatick dem nañ fa Matam dem nañ fa salle de banque waa Mbacké musuñu faa toog wax ak président wax ak président ci bët ak bët. muy jeune muy jeune muy déglu suñu xalaat musuñoo déglu ci dara léegi nag man fi ñu toll mooy man ci liggéey bi ma nekk mooy dajale toute la jeunesse de département de Mbacké rawatina waa Touba ñu am suñu fulla am suñu fayda ndax kat ñu nekk magam guddi xaw ma nañu ko ci waxee ku ko dajut mu daj boppam ñun Macky gëmuñu ko kooku dañ koy waxaat ba mu ne ñun ay taalibe lañ Serigne Touba lañ gëm dafa am na ay intermédiaire parce que ñun li ñu bëgg a jàppale duñ ko nangu bu ñëwee traité ak yenn sëriñ yi dem bàyyi ñun ñun ñun bi ñu koy jàppale buñ masaan dugg ci yenn kër sëriñ yi suñ fa masaan dugg dañ naan sëñ bi dafa fatu kooku mooy dëgg buñ masaan dugg si dañ naan sëriñ trois heures de temps du nu génn tey yi ñu ñëw ba agsi fii ñu bëgg ñoo taxañ rek sànni ñu noonu tout te bu xeex ci terrain politique bu jotee ñun ñoo koy def bu élection yi jotee ñooy nekk mandataires yi ñooy nekk représentant des bureaux de vote yi ñooy dem ci nit ñi wax ak ñoom ñi muy waxal ci saalu sedd la ñuy la la la nekk ñun ñooy wax résultat yi ñun ñooy def lépp mais bu ñu agsee fii mu bëgg ñoo foyee dañuy lànk ñun dañoo am fayda d'accord léegi yow général ngeen bëgg mooy yow nga dajale jeunesse bi nekk ci département bu Mbacké léegi bu ngeen leen dajalee ba pare yan yan ban taxawaay ngeen di amee benn taxawaay lañu ñu am mooy que ne dañuy taxaw parti bi moom kenn mënuñu cee génne kooku dafa war leer parti bi dañ cee xeex am na ñoo xam ne bu ñu xeexutoon Macky Sall du yore big bu muy nomee nit kooku mooy dëgg am na ñoo xam ne bu ñu xeexutoon xeex bi président Macky bu gis big bi léegi nu ngeen def léegi nu ngeen def léegi nag ñun suñu paree ñun bu ñu paree loolu kuy jëm guerre wax li ngay def mais en tout cas ñi ngi si ay waxtaan da ngeen dajaloo taxaw am fulla am fayda wanee ko ne ko nekk carrément moom moo yore big bi mooy namee mooy def lépp waaye ñun tamit dañu am fayda ay nawle lañu bu lépp jàllee président suñu kilifa la mais ay nawle lañu ñun ñëpp ay sénégalais lañu réew mi sant Sall mais général li ñu seetlu tamit ci département bu Mbacké rawatina bis bu yàlla sàkk da ngeen wax ne Macky Sall defulu leen dara mais su ngeen déggoon ñu ne Macky Sall day ñëw Touba wala ñëw Mbàkke rek ñu gis ñii politique ñëpp defar ay pancarte ay t-shirt di di gàttanu Macky Sall di ko di ko tàccu mel ni que ngeen a kontaan ci moom alors que bu loolu passé ngeen ne kontaanuñu loolu loolu loolu yenn responsable yi loolu yenn responsable yi fii rek ñoo ko desee dafa am ay responsable yoo xam ne dafa am ay intérêt yu ay ay intérêt yooyu ñoom ñoo koy def mais ñun jóge nañ ci yooyu bu yàgg ñun Macky Sall jëral duñu taxaw bi nag ñoo ko bokk waaye nag su fekkee ne li muy def nii di ko teg deal politique yi ñuy def nii di ko def bu fekkee ne ñun dañu jàpp ne ñun dañu indil ab Idrissa Seck euh, defaral ñu ko moom rafet deux mille vingt quatre ñu ne ñu acca kaay leen la ngeen defaloon Macky deux mille douze defal ko deux mille dix neuf kaay leen defal ko Idrissa Seck pour mu jàll deux mille vingt quatre nañ ca dem ba fekkee ñun ay xar lañ loolu dina leer d'accord mais yéen yi ci département bu Mbacké rawatina yéen jeunes yi est jotul ngeen amaat beneen taxawaay maanaam gën a respecter seen bopp ci wàllum politique waaw ah, ci loolu la ñu nekk man xam nga man xam nga man xam nga man xam jili man xam nga ma man nekkuma ci man nekkuma man déwuma ci kër benn responsable di ko wutal dara man nekkuma ci ay bureau gisoo ma Dakar googu may wëndeelu ci ay bureau ministre di wax a kenn yaa ngi comprendre ba ànd ak président Macky Sall jotee damaa ànd ak moom dama xeex ba falu fii Touba fii conseil municipal laa fii damay toog ci kilifa yi fi ñuy décider am na yeneen jeunes yu mel ni man ñoo xam ne fayda boobu lañ am comprendre nga du ñëpp am na ñoo xam ne nag dañuy sol seen i mbasin di wër yi di wax ci kàddu jeunesse su Touba wala leneen di wër di wax loo xam ne ak teguñu ko fenn. d'accord ñooñu ñun bokkuñu ak ñoom. mais président tamit est-ce que euh, du faral di yóbbante waaye yóbbante bi moo dul egg. wala yóbbante bi ma ngi yegg wala dafa yóbbante wut. non président Macky Sall bu ñu wax loolu ba mu ba muy soxla Touba daawul yóbbante kenn xam na ñim fi amoon moo la ko gën a xam xam na li lim daj lim daj Touba ji. ma am trente huit mille voix ci dans le département de Mbacké premier tour ba ñuy dem deux mille douze président dara ump ko moo ëpp information ci monde bi comprendre nga ni ñu bëgg a a a am fayda am fulla parce mooy jaay Dakar. d'accord nangu nañ dogalab yàlla ci mooy président mooy suñu kilifa ci parti bi mais ni muy doxee d'accorduñ ci. Euh, général dugg ak Idrissa euh, ci gouvernement bi ak ay ñoñam euh, loolu lan moo ci sa xalaat. mooy loolu dil la da dem ba mu jaag yow mi jeune bi politique sax doo xam kan ngay jël référence ab dil rek dil boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko togg waaye ñun nag xam nga ñun sonnuñu ci ñu ngi toog di xaar rek fa muy sottee parce que ñun bu bu dara desul lu ñu bëgg a ñoom faluwaat dinañu jima utiliser sur le terrain pour falu bu boobaa nag fi lañ ñuy fekk su fekkee ne ñoom dañoo jàpp ñoom ñoom dañoo war a toog ci clim yu sedd yi ak oto yu sedd yi ñun ñuy wàcc ci terrain bi di leen fal ñuy def lu ko ab dëkk mooy amu sant akum ré dëkk mooy amu sant akub kër boo sancee sa kër sant Guèye man ngaa tudd mën naa tudd Ngéyeen nga sanc sa dëkk mën nga ko tuddee Daaru Caam wala Daaru Naar am réew mu amul sant ci àdduna amul réew mi ñëpp ko bokk kenn moomu ko. d'accord léegi euh, am na ñu bari ci APR ñu ñu dàq. ko si mel nii Makhtar Cissé dañu ko njortal ne dafa am ay ambition présidentielle waaye njort la na Aminata Touré tamit euh, dañoo wax ne li tax ñu dàq ko dafa am ay ambition présidentielle Amadou Ba tamit li tax ñu dàq ko dañu wax ne dafa am ay ambition présidentielle euh, ba ci Aly Ndiaye Euh, lan moo ci sa xalaat ci loolu. xoolal nit kenn waru koo rey ci lum xalaat. nit kenn waru koo rey ci lum xalaat. kenn waru koo rey ci lum xalaat. ñooñu am nañ droit am ambition gis nga nit nañ waxante dëgg président Macky Sall dafa amoon ambition ba am ba nekk président de la république yaa ngi may waaw ñooñu réew mi ki wax naa ne kenn moomu ko ay Aly Ngouille Ndiaye ak ay Makhtar Cissé ñooñu ñëpp am nañ droit am ambition comprendre nga waaye man bi ma nekkee ñoom ci biir parti bi nekk ak ñoom ñu nekk ci biir gouvernement bi man musuma gis ñu teg benn pas buy wane ne dañoo bëgg a daaneel Macky Sall wala dañ koy xeex ñooñu doon liggéey liggéey seen liggéey bu normal bu fekkee ne nag président Macky Sall dafa am nit ñoo xamante ne ku ku rey say junne deseeg sa àll loolu mooy dëgg maanaam dafa may ah, jaxase ah dafa ay ñuy jaxase si parti bi. dafa am ñoo xamante ne li ñuy wax président dara du ci dëgg loolu mooy dëgg. d' accord mais général la ci département bu Mbacké avant liste bi génn démb ci remaniement bi ñenn ñi ñoo ngi doon xalaat ku mel ni Cheikh Abdou Bali wala ku ci mel ni Gallo Ba ñu bari doon nañ ko xalaat waaye fi mu mujjee daal defuñu si kenn ministre loolu moom ndax njortoon nga ne ñooñu danañ leen fal. waaw ñooñu waroon man pour si fal baax na ndax kenn ku si nekk sonal président liggéeykat la man moo bokk département bi fii man galaba ak fii may toog di wax ak yow un an wala deux ans ngi ni taxaw teguma sama tànk biir këram comprendre nga teewul fu ñu waree daje liggéey dañuy daje liggéey ku nekk dem Cheikh Abdou Bali tamit jàmbaar la mënoon na bi mu perte élection législative yi mu toog mais toogul dafa nekkaat sur le terrain di dajalewaat njabootu politique u président ci biir dëkk bi comprendre nga ñooñu ñëpp ku ci tudd rek yayoo nga ko xam ne ñeneen responsable yu yoo xam ne ay cadre lañ yoo xam ne ci ne yayoo nañu ko comprendre nga mais ni am solo mooy que ne président Macky Sall si jëmmi boppam moo fullaal lu ñuy politique ñu koy politique Touba. mais est ce que jàpp est ce que nag bu dajee waxambaane te doxin wala. est ce que jàpp nga ne kon ñiy jàppale Macky Sall ci Touba ak instant bi ndax jàpp nga ne dañoo mer. kenn kontaanu ci ñoom ñëpp ku mën a wax ak ku mënta wax kontaan ndax am na ñoo xam ne nag du wax président du wax jëmee ci président dara parce que peut-être euh, wala ragal nañ man ku ci am looy maye bu la neexee bu ma may teel sa xaalis ku ci am looy maye li may wax bu ku déranger boo amee looy maye bu ma may kooku mooy dëgg. mais li ma xalaat danaa ko wax ndax ci laa bokk ñii fi wax ñii ñi fi jox ay teraanga ñëpp dañoo dab parti fii lañ nekkoon di saaga président man boobu am ba mu mën a gut a maye un million boobu laa àndoon ak moom ak ay nit moo tax man li ma xalaat danaa ko wax d' accord jërëjëf euh, général Diène Gueye euh, ñu fàttali ne yow yaa ngi bokk ci parti bii di APR euh, nekk conseiller municipal ci mairie bu Touba responsable politique ci département bu Mbacké rawatina ci biir commune bi bawal info point net ma ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup jërëjëf.